auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala nabil karim allahuma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad mbokk yi Tawfekh Production mooy ñëwaat ak yéen ci beneen numéro ñu fas yéene ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy euh, option bi ñu am di def aj gi te muy tamatu tamatu ginnaaw boo waxee allahuma labbayka umra tamatuhin ilal aj maanaam maa ngi fas yéene ñëw yow suñu borom wuy si la ci aj gi nga xam ne damay def umra boo xam ne umra tamatu la fas yéene koo def jeexal ko fas yéene nag dugg ci aj gi ci juróom-ñetteelu fan bi mbokk yi nan la defee tamattu ginnaaw bi nga yéenee muy aj goo xam ne option bi mooy da nga fas yéenee ñëw def umra umra nag buñ ko waxee ñetti faratal la am ginnaaw yéene bi nga xam ne dugg na nga yéene woon def euh, umra boo xam ne da nga koy boole ak aj mais danga koy xaajale ñëw nga def nga yéene bi boo ñëwee comme li dal ifraat léegi boo ñëwee da ngay def sa tawaaf waaye nag yow sa tawaaf googu nga def moom tawaaf xuddoom lay jël ba nopp jël sa tawaaf umra bu ko defee boo fa jógee def ñaari ràkka ñaari ràkka yooyu mooy ñaari ràkka yi nga xam ne moom ngay def euh, ginnaaw maqaam ibrahim jóge ginnaaw maqaam ibrahim continuer nag dem def sa safa ak marwa sa umra jeex na bu dee nag yow yàlla dafa dogal góor nga da ngay am looy dagg ci sa karaw ngir màndargaal na jeexal nga sa umra bu dee jigéen nga nga jël sa baaraam nga windeel ko ci sa karaw ba nga xam ne mat na ci sa baaraam nga dagg ko nga wane ne yow moom jeexal nga ci sa umra kon loolu mooy ki nga xam ne yéene na def umra soog cay teg aj kon kooku mooy kii def tamatu kon moom li mu war a xam mooy bu ñëwee li muy def yépp ci ay farata am lay dugg waaye nag léegi lan moo koy dese mooy bis bu jugee arafa bis bu jugee arafa foofu na nag kii def tamatu war a xam ne moom ginnaaw bi nga xamee ne jugee naa arafa ndax kii def tamatu moom bu yàlla dogalee am na lu ñu koy daan moo ngi ñëw ci kanam mooy moom def na li muy def muy umra bu fa jugee ba def umra bi ci waxtu wam ko def moo xam waxtu wu mun a jugee Madina ñëw ne def na umraam moo ngi ci hôtelam Màkka wala moo ngi ci fa mu dëkk ci biir Màkka bu ko defee moom day xaar juróom-ñetteelu fan mu yow ma tarwiya yow ma tarwiya boobu ci lay demaan moom yéeneem dugg na ba noppi mu soog a solaat ay armalam moo xam dafa am deuxième armal bu dee góor la wala jigéen bu ko solaatee nag moom nag moom ngi fas yéenee dugg nag ci aj gi ndax dafa waxoon ne maa ngi fas yéenee wuy si def umra tamatu soog a def aj léegi nag moom mu ngi fas yéene def ajam parce que li mu jëkkoon def yëpp ci manasikul aj yooyu yëpp dafay dugg ci umra bu ko defee nag léegi moom day yeesaa tàq fas yéene nag tàmbaliwaat nag tàmbaliwaat bi li koy waral mooy moom à part li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, yéene bi nga xam ne def na ko li ci des yépp nag da koy defaat ndax lu njëkk li mu def day dem jëm ci umraam kon nag lan mooy mottali aj jóge na léegi nag euh, ñëw na Mina léegi li muy def mooy day fas yéene ànd ak ñi mu war a àndal ni ko Arabie Saoudite organisé wu dem rafa léegi nag moom mu ngi ci beneen ponkam ponk boobu nag mooy duggaat ci ponk aj gi ndax moom pare na umraam boobu ponk nag bu ca noppee day dellu siwaat nag bu jóge yaa rafa ñëw sànni jamratu baam comme ni nga xam ne noonu la ko ifraat defee ñëw continuer màkk wala mu delluwaat na loolu lépp na boo gisee ñu di ko wax ay option la ndax am na ñoo xam ne dina xat ndax ay vingt deux mille bus aju ci train bi di yóbbu nit ñi vingt deux mille bus ñoo fay jóge di def rotation yi di yóbbu nit ñi fa nga xam ne mooy Màkka ci ay yoon la yoo xam ne ay circuit fermé la waaye tunnel bi bëri na ci ñoo xam ne am na ay giddu yu yàlla baaxee ñu axam yoon wi ci tunnel bi la ñuy jaar dox am ñu leen ci jàppale ba keroog ñu yegg màkk def seen tawaafu ifaada tawaafu ifaada googu ngay def nag mooy dugg ci sa tawaafu acc boo ca noppee nag defoon nga safa ak marwa ifraat moom du ko defaat waaye yow mi def tamatu da ngay dem def safa ak marwa ndax safa ak marwa bi nga jëkk a def yow mi def tamatu day dugg ci sa day dugg ci sa umra kon lii mooy li nga xam ne ki ñuy topp ci taw Tawfekh Production li mu war a xam mooy moom mi tànn def tamatu moom ginnaaw juróom-ñetteelu fan bi soraat na ay armalam day dem directement nag fa nga xam ne moom mooy Minna di ngeen dégg Munna di ngeen dégg Minnam Minna bu fa demee muy station boo xam ne waajal boppam la ngir fas yéene dem ci rencontre bi nga xam ne mooy yow ma Arafa nga xam ne yow ma Arafa bu ñuy wax daal ju xarafa haj gi daal moom xarafa la ndax moom al wuquf la foofu leeral gi ciy am ci al wuquf ci teew gi di ngeen dégg taxawaayu Arafa ndax ñun olof yi moom dem nañu ba bu ñu xasee ba jël dara rek dañu jàpp ne ko moom léegi taxawaayu arafa bi nag du da ngay dem taxaw di nga taxaw julli def tisbaar def tàkkusaan waaye nag taxaw bi ginnaaw tàkkusaan bi la nag nga taxaw jàkkaarloog penku bi di ñaan loolu lu mën a nekk la ndax diggante euh, fi ñuy wax euh, majjudu naamira ak jabal rahma la bu sori ndax maa ngi wax ne léegi min na dafa am juróom-ñaareelu pàcc ñaari pàcc waaye xarafa juróom-ñeenti pàcc la ndax moo gën a yaatu fa nga xam ne ci wàllu teewaay mooy gën a yaatu min na ndax ñépp fay daje Mina mun naa am ñëpp duñ fa daje ndax am na ñu jóge Makka directement dem Arafa comme am na ñuy jóge Mina dem Arafa moo tax Arafa juróom-ñeenti pàcc la ko Arabie Saoudite organisé boo koy xool ci carte bi juróom-ñeenti pàcc yooyu Sénégal bëri na ci fa muy ne dafay xaw a jàkkaarloog rax ma ci at yi nga xam ne moom la ñu weesu kon ñoo ngi wax ne kii def tamatu moom li mu war a xam mooy bu génnee ci umra gi mu njëkk a def séparé ko ak aj gi li muy defaat yépp ci ajam la dugg kon ñoo ngi fàttali ne moom bu ñëwee ginnaaw bu solaatee ay yére armalam dem fi nga xam ne mooy Mina julli fa julli yi muy julli jóge fa dem Arafa teew Arafa ñëw bu demee day def tawaafu ifaadaam bu dee delluwaatul Mina bu defee tawaafu ifaadaam na ko wóor ne day delluwaat def safa ak marwa ndax moom bu mu fàtte ne bi mu ñëwee def tawaaf xuddoom dafa na safa marwa waaye safa marwa ba bu compté wul pour aj gi safa marwa bii mu def ginnaaw tawaafu ifaadaam mooy pour aj gi kon kooku jeex bu ko defee moom muy def tamatu moom jeexal na umra nga xam ne da koo séparé ak aj gi kon loolu moom lañ leen indiloon ci seen ñeenteeli numéro bu ko defee ki ñuy topp ci Tawfekh Production xam ne lii mooy tamatu moo tax ñu séparé ko entre ifrat tamatu fa yéene ñëw ci seen juróomeeli numéro ci xiraan mi nga xam ne mooy aj gi ñuy lënkale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk